jumaa yi jooy nañu sedem gi mbàkke jàkka yi jooy nañu la duune sekki sariya jooy na ko aqiiqa jooy ko kenn ci yaar musli gindi juuy ko képp ku dib jullit te sell jooy na demam gi ngir ñépp ko ñàkk wóor na ab sag la woon ci diine jéeg jullit yi sange la woon dalal xelum murit yi ma wax la nag tuuti ci jaar jaaram ak i meloom nga xam ni moo di yaaram caamaal sa ci weeru sambaan lagane duniyaa moo ko wax duy caaxaan dama fa daa dem di ko laaju ay mbiram ak mbiri seex mbàkke magam ngir bëgg a xam moo ni ma wenn weer wi noo ko bokk seex la am nay seere bul ko sikk fekkoon ma jàpp man lu wutaag lii bam ma waxee laa bàyyi loola ngir lii daam ñu naa sëñ seex a waaye sëriñ ci koor la ñuy di ndaanaan ba mu ganee àddina nii ma ko waxe ba ma tadal nu ko daa di fab joxe ma duma taar aale la am di woolu jox ko ko moog Seex Mbàkke maa ko wóolu ma duma taar aale daral leen jàng foofee fatindoo di la daawuñ jàng sax na faak ñoom at ñu far fa mokkale mu andi leen ci Moustapha muy bégale te naa ko yóbbu leen ci seexu Bamba xibaar ko seeni mbir kilee xam Bamba seex bamba seet seen mbir ci saaru luqmaan di déglu ñuy tari li lee di kiimaan léeg-léeg sëriñ bi deltu ngir yaraate te naa way xaala demal yaraati yaay soo jëna kelay taxawloo mag ña di reetay jege si xerawloo sëñ mbàkke ma dinaa ma doon xibaar lii ma ne ko amu ni ma waaw seetal nii dañuy bëgg nag bala ñuy tàmbali liggéey bi ñu tàllal suñu loxo mbakke ñu nga ñaanal buñ tàllale loxo ba nga ñaan rek ñu ubbi waxtaan wi incha allah kon nag ñëpp tàllal seen loxo sëriñ Abdourahmane Mbakke ñaan bisimilah. amin amin amin amin Mbakke amin. jërëjëf. alhamdulilahi rabbil alamin di sant xaadim rasul si Ahmad Bamba mi nu jàppanal bërëb bii ban am lii nu am ban nekk fii nu nekk tey waaye di santaat bu baax tamit sëriñ Cheikh Ridial Seck mi suñ borom dogal fii nu toog mu nekkoon ci moomeelam waaye tamit mu doon ab Baay Faal nekk doomu sëñ Ridial waaye bëggam lu baax ak bëgg lislaamam taxoon mu jox ñu bërëb bii di béréb boo xamante ne bii kenn ku ne xam na suufas Tuubaa ni mu seeree lu ko neexoon tey mën na ko jaayee ci ab xaalis wala mu def ko nu ko neex waaye mu ne lislaam ma ko doy mu jox ñu ko mooy jàkk ji ñu jëloon nii tey maa ngi sàkku ci sama kàddu ku fi toog ne ñu defal ko fatiha ak qul huwallahu ñetti yoon ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala yërëm jéggal sëriñ Cheikh Seck Rijal moom sëriñ Rijal sekk bisimilah. waaye tamit di wax mbooloo mi ne maa ngi sant yàlla bu baax a baax ci. lii nga xamante ne bii suñu borom baaxee nañu ko ci barkeb Serigne Touba waaye tamit Xaadim Rasul mi nga xam ne moom moom dëkkam bi baaxee nu ba waaram wi lim ci bëgg nu ko ci jiima bayal muy xam-xam ndax kenn ku nekk xamoon na ne suñu borom xam-xam la njëkk a wàcce ci lislaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaaru xiira ba nga xamante ne bii yebal na malaayka bi ñuy wax jibril mu ñëw fekk ko fa lam ko njëkk wax mooy iqra iqra mooy jàngal kon loolu moo jëkk waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit ci hadisam yi bokkoon na ci lu mu wax ne sàkku xam-xam farata ci jullit bu ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin demoon na sax ba Chine ak Màkka soree loolu waaye fokk xam-xam gu ko fonk tax mu ne atlubul ilma wala bi siin kon loolu dafay tegtale ne xam-xam am na cër waaye tamit li nu santewaat Sëriñ Tuubaa bu baax a baax ci li nga xam ne baaxee nañu ko ci dëkkam bii nekkoon ci bëgg-bëggam mu gën a bëgg muy ko koy taxawal ci xam-xam di ko taxawal ci jaamu yàlla mu waxoon ne waj alhu ya rabbi waj alhu ya rabbi daban maskana taallumi wa mawda al fikrati wa mi loolu nag kon dafa mel ni kii sëriñ bi ci mbaaxam moo nu baaxee dimbale nu ci mbaaxam doonunu ci dara mu dimbale tey ban taxawal lii nu taxawal di sàkku nag ci képp ku fi teew ci kilifa ak jataay bi ndax sëriñ Mbàkke Madina mi ñu ko tuddee man damaa juddu ci sëñ Mbàkke Madina sama baay juddu ci sëñ sama maam waka saalika kon ñun mënuñoo am lu delloo ko njukkal ndax tamit nit warta fàtte démbam te sunu démbu sëriñ bi la kenn ku nekk xam na ci cosaan yu yàgg-yàgg bi sëriñ bi ñëwagut mbir yi doy nawaar bi sëñ Tuubaa ñëwee ba leeral ko kenn ku nekk am na foo xamante ne bii fa la la yàlla dogal nga nekk fa sëñ Abdourahmane Mbàkke ñi ngi la ñaan suñu borom yàggal la fi te wéral la ñi ngi koy ñaan ci mboolam yëpp ngeen ñaanal ko fi ndax lii mu def nii amul jot te tamit yitte yi bari na ci moom lool waaye ban ko ko ñaanee ne ko dañoo bëggoon nga agsi fa ñaanal nu wax dëgg yàlla dana ko jàpp na la lool def ko sunu wasila tamit di sëñ Ibrahima Mbacke ñaamar tey ci suba bi ma ko ak moom mu xamal ma ne comme ñoom dina ñëw dinaa yebal sëñ Jiili Mbacke muy doomu boppam mi ngi ni ci jotaay bi moom itam ñëw kon nag ñi ngi sant ci loolu di gërëm ci loolu di wax waa koñ bi seeni saar bay seenab doom la seenab taalibe la seenab ndongo la waaye lenn moo ko ñor mooy jaamu yàlla ak liggéey lenn moo ko ñor fexe ba Daaru Tanzil bii bokk ci quartier yi gën a mag ci Touba waaye quartier yi ëpp njariñ ci Touba te incha allahu taala bu fi yàlla yàggalee bàyyi fi ñu fi ak fan wi dinañ ci xam dara incha allahu taala maa ngi leen di delloo war sama bopp di leen dénkaat sama bopp di leen ko joxaat ci xam ne noo bokk bëgg-bëgg noo bokk pas-pas xëy na yàlla moo dogal rek lii ci man waaye tamit maa leen koy delloowaat de xam ne lii yéen a ko moom doonu ma ci dara bu ngeen jàppee dina dox su ngeen taxawee mu taxaw su ngeen doxee mu dox si kàttanu yàlla fii tey buñ sañoon doomi Daaru Tanzil kenn du leen fa ëpp buñ sañoon doomi koñ bi kenn du leen fa ëpp buñ sañoon doomi Touba kenn du leen fa ëpp buñ sañoon doomi Mouride kenn du leen fa ëpp waaye suñu yéene nag tey jii mooy mu dem ba nii mu nekk primaire dem ba nekk ëllëg collège dem ba nekk ëllëg mu nekk euh, lycée waaye ñi ngi ñaan sax mu dem ba ëllëg mu nekk université. loolu nag ay mébét la yoo xam ne mi ngi sunu kanam ci kàttanu yàlla di ñaan ci barkeem ku ñu ko du dee suñ borom wàcce wàcc barkeem wàcce ci kaw bërëb bii. waaye tamit di sant di gërëm bu baax a baax sëriñ Cheikh Fatim Seck mii ndax tamit moom moo fi nekkal sëñ Rija tey sëñ am di rakam jàpp moo tax moom mu ñëw te ñoom ñaan ñëpp benn la ñu maa leen di sama cant ci moom. ñaan yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu te wéral ko kon nag loolu laa bëggoon a wax ko mi kàddu di sant di gërëm di bala ak ñëpp di bala ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xamante ni dara ñoru ko lu may koñ bi rek ak xale yi am xam-xam teg tànkam ci siraatal mustaqim kon ñu jëkkante ak kàddu yi def jël kàddu gi jox ko kan sëñ Cheikh Fatim Seck moom sëñ Rijal Seck mi nga xamante ni way juróom bu baax wa Mbacke moo joxe bërëb bi tey ba li am fii kon sëñ Cheikh Fatim bisimilah. bismillahi arrahmani arrahim. inna waliya allahu lazi nasala alkitaaba wa xuyata wala saalihin. wasalli yaa ahadu bi taslimi ala lasi buisa bi taalimi sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi lhaali wal maali fahimni al ilma wa zidni ilma wa amalan adaban wa fahma mubaarakul ibtidaa maymunul intihaa barakatu Cheikh Ahmadul Xadim mbokki jullit yi mbokki taalibe yépp noo ngi leen di nuyu asalaamualeykum wa rahmatullah euh, di jiital ci nuyoo bi saaxibul fadilati Seyd Seydil Muxtaar di beesal sunu taalibe ak njëbbal te di ko jaarale ci doomam yi ak sëtam yii fi teew di Cheikh Abdourahman Mbacke ak njaboot gépp di leen ñaanal ñu yàgg fi te wér ba mën a àggale naal yi ñu naal ci lislaam ak ci yoonu yëpp euh, noo ngi jël sunu kàddu te di ko fas yéene gàttal ndax xam naa waxtu wi daanaka gàtt na fi ne ndax waxtu wi day bëgg a jege waaye ginnaaw bu ñu nuyoo li ñuy njëkk a def daal mooy faaw ñu def suñuy seede nag ci jëmm jii di seeni saar di bàyyi xéwal te li ñuy wax it yàlla rek tax ñu di ko def wax wa ma shahidna illa bi ma alim na wax dëgg yàlla seeni yàlla yàgg nañu waaye li nu mën a seere mooy as gor la ab jullit la ab taalibe la te lu ci nekkit mën nañ cee joxe firnde as gor la su am kóllëre ndax kóllëreem moom mat naa ci seere ndax kóllëre gi ma siq ak moom waw fu waw fu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula moom mel na ni dégg na ko ab jullit la it ndax wax dëgg yàlla mi ngi pratiquer lislaamam ca kem kàttan ni mu ko mane ah, li mu doon doon gone itam gisuñ ci moom yenn tànki caaxaan yu dul fas yéene nekkal yàlla ak yenn tamit Serigne Touba di ko liggéeyal te it ku fonk ay kilifaam fonk ay waajuram la suñ borom digle ci wa xadaa rabbuka allaa taabudoo illaa iyaahu wa bil waalidayni ihsaan loolu it ñu gis nañ ko ci moom ihsaanan ndax am na yéenay mottalil ay waajuram seeni jaamu yàlla yépp lañ ca mënta matale ba door a sof yëfi boppam ci luñ seere ci ay si farataam ki sunna ak taalibeem it liñ ci mën a seere ci lu wér mooy bari na taalibe yoo xam ne fi mu ne boo leen ne kañ nga gis sëñ ba danañ la wax dat bu yàgg waaye weer wu dee mu ne nga dem siyaare ji sa sëriñ yóbbu àdd yi nag wax dëgg murit saadix dëgg rek koy def te gis nañ ko ci kon si yàlla na yàgg te wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ Touba mu mën ko àggale lii muy taxawal it lépp pas-pasu bëgg a liggéeyal yàlla ci ci ci lislaam ak ci yoon liggéeyal sëñ Touba ci dëkkam bi rek la ndax seet li sëriñ bi gënoon a bëgg mu di ko ci liggéeyal ndax xam-xam li ngeen ko waxee ci farata ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen euh, loolu lay firnde ji ndax ginnaaw suñu borom nee na xam leen ma door maa jaamu ndax bu ngeen ma xamut nan ngeen may jaamoo kon farata la ci bépp jullit bu bu jigéen waaw te kon faaw nga jëkke xam-xam door a mën a xam ni ngay toppe sa borom xam-xam it mu mel ni sëriñ bi wax nañu ni na ngeen xam ne man an altaalamoo bi an na ilman wa amal uma wasilata saadati ajal xam-xam ak liggéey ñooy mooy yi nga xam ne ñooy tax am texeeg àdduna ak àlaxira na xam ne xam-xam ak liggéey ñooy yi xëcc ñaari yiw yi àdduna ak àlaxira kon boole xam-xam ak liggéey defe naa moom it mooy ngir muy mu sóobu ndax bañ ko jàngaloo ba mu ci jàngee ba noppit di jàngale ba yàlla dogal mu boole ci beneen liggéey it nanguwut bàyyi xam-xam ba di jàng ak jàngale. kon loolu tabaarakallaahu si yàlla na suñu borom àggale sa yéene ndaw ñi itam ñi tàmmul kenn ku ci nekk da nga am pas-pas ndax ret damay faral di wax ne tàmbali yomb na waaye àggale moo jafe. yàlla nañ lu may tàmbali ak àggale noonu ma ko junjee ci ci jalbeen ga mubaarakul ibtidaa may mënul intihaa waaw kon daanaka waxtu wi jot na. si ni lii yàlla suñ suñu borom àggaleel yéene ji daal yéene la ju ñu tàmbali yàlla na ko yàlla mi mën a àggale te lottul ci dara ci baaxook Serigne Touba mi ñu liggéeyal yàlla na dimbale ba nga àggale ko ni ko bëggee mu yokk ba àgg fa kawe njort yaa yaaxi sayxul xadim wa bi ansatil maxatum sallallahu taala alayhi wa sallam barki warahmatullah asalaamaaleykum mbooloo mi fi daje yëpp ah, maa ngi nuyu alaaji Baye xewal di nuyu kilifa gi di nuyu parents d'élèves yi fi nekk yëpp comme ni ko Abdou Baaxe Cuun waxee woon sànq rek Euh, man maa fi teewal Sonam assurance bi nga xamante ni mooy assuré xale yi ci élèves yëpp euh, ci école yëpp waaw assurance bi nag ni ko Abdou Baaxe Cuun waxee woon rek euh, élèves yi dañ leen di assuré ci biir école bi waaye dafa am lu mu fàtte mooy dañ leen di assuré waare ci biti mooy bu ñuy jugee ci école bi di ñibbi ak bu ñuy jógee seen kër di ñëw ci école bi lu leen ci dal rek assurance bi macha allah moom moo koy moom moo koy jël en charge loolu nag la alaaji Baye xéewal xam moo tax mu wooñu indi ñu fii pour mën a assurer xale yëpp ndax xale moom ñëpp xam nañu fu ñu daje rek faw ñu def seen yi fi xale te loolu yi fi xale moom lu ne da cee xaj euh, ñaanuñu ko yàlla waaye nag da ngay da ngay da ngay sóor lu bari looloo waral bay xéewal woo ñu fi ngir ñu assurer xale yëpp waaw comme nag waxtu bi dafa gàtt noonu daal la assurance bi tëddee ausu billahi min alseytaani irajimi bismillahi irahmani irahimi alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa moolana mohammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi saw ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqoo qawli barkeb sëriñ Mbàkke Madina sun sëriñ salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit bokki taalibe yi sëriñ Abdourahmane Mbacke ibnu sëriñ Mbacke Madina mi ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi ki waral jataay bii muy alaaji Sini Sarr bàyyi xewal mi lay nuyu ci turu ay kilifaam muy cheikh Sidil Mokhtar xalifa général de Mouride ak sëriñ Ahmadul Mokhtar muy xalifa bu cheikh Mouhamadou ak sëriñ cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne moo nekk ci kaw njabootu moo nekk ci yilif njabootu sëriñ mbakki Madina gépp ak ci turu sëriñ Ibrahima Mbacke ñaamar bi nga xam ne mooy sa bunt ci kër sëñ Mbacke Madina. Euh, mu ñëw ci seen tur ànd ak doomi sëriñ Ibrahima Ñaamar mu sëriñ Jiili ngir ñëw teewal leen ci li nga xam ne mooy li taxoon sëriñ Touba sanc dëkk bi ndax daara la ko def Touba daara la jàngale te lañuy jàng ñu jëfe ko moo taxoon sëriñ bi sañ dëkk bi kon nag nee na ci turu sëriñ seex ak sëriñ ibra ci seen tur lay wax di soññi mbooleem ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi ñu fexe ba daara ji ñu xam ne seen daara la ndax sëñ bi looloo taxoon mu sañ dëkk bi nee na it alaaji bàyyi xéwal mi nga xam ne mooy taxawal daara ji mu ngi koy sant di ko gërëm te di ko soññit ci mu topp daara ji gëstu ko bu baax maanaam sàmm di lépp ñi fi jàngale ñu xam ni ñuy jàngalee fexe ba njàng ma ñuy jàngale ñu mu fexe mu ñu fexe ba njàng ma dëppoog la taxoon sëriñ bi sanc dëkk bi ndax dëkk bi bari na ay façon yi jàngale jàngale yooyu nag moo tax sëriñ bi bëgg képp ku fi sos daara nga fexe ba njàng ma nga fay ja ma fay jàngale sëriñ Abdourahmane nee na fexe ba njàngale mi ñu fiy jàngale dëppoo bëgg-bëggu sëriñ bi da taxoon sëriñ bi sanc dëkk bi loolu nee na mi ngi koy mi ngi la koy fàttali xam na sax ci loolu nga nekk waaye nag dana ko soññee ak ngirit keneen koo xam ne dana jóg ngir fas yéene taxawal liit mu mën a sàmmonteeg loola lool rek a tax mu di ko wax waaye xam ne na yow loola ku ko sàmmonte nga kon nag mi ngi ñaan ci barke sëriñ Mbacke mën na sunu sëriñ ba sunu boroom defal la ci ndam loo xam ne ndam loo xam ne dana faw ko sa jot ci barke sëriñ Mbacke mën na sunu sëriñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon nag ñëpp déglu tàllal seeni loxo sëriñ bi ñaan bu ko defee nu dugg ci jàkk ci julli dem ci école bi ubbi ko bisimilah na ñëpp tàllal amiin